asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi rawatina sëriñu daara yi ak ndongay daara yi compagnie Serigne Seck Sénégal C3S ginnaaw bi mu amalee concours journal yaatal mbindum alxuraan jagleel loon ko région yii di Sédhiou Kédougou Kolda Tamba Ziguinchor ak maatam mooy amaat mbégte di leen yëgal bis bu mag di cérémonie de remise de prix bu mu jagleel ñett ñi jiitu ci boobale jongante muy dëppook samedi 29 janvier 2022 ca centre culturel bu Matam bis boobu nag C3S mi ngi koy tuddee Thierno Mouhamadou Samassa di kilifa diine bu mag ca maatam C3S mi ngi koy yëgal mboolem kuy autorité nekk ca boobale région bàyyiwul kenn ku ci bëgg yeneen ni leeral mën ngaa jokkoo ak Ahmed Tidiane Sall ca maatam ci numéro bi di 77 424 23 21 wala nga jokkoo ak Ousmane Dia ca Ranérou ci numéro bii di 77 784 15 44 wasalaamaaleykum wa rahmatullah بنعمة ربك بمجنون nga bëgg def dara loo xam ne ni baax na ci ñoom duñ ko xam wala ci kaw ci gouvernement bi ñu bëgg def dara loo xam ne baax na te luñ ci ñëw ñun leeral la ko xam nañ ne bu doon tey da ngay jóg ànd ak ñun def tamit loolu moom leer na. jërëjëf jërëjëf alhamdulilah. yal na yàlla yokk sa maqaama. amiin amiin li ma lay ñaanal di ko wax. mooy daara boole. moom mm-hmm. gisee ci daara ji ku def lu jëmmal daara ji. duma mun lu may hmm? yëg la fonk la ànd ak yow di la ñaanal. Mm-hmm. te daan la wax ne bul yàkkamti. Mm-hmm. bul yàkkamti dara. ah incha allah yàlla dëggal na suñu yaakaar yàlla dëggal na seen yaakaar ak li ngeen di wut li ci des nag fa liggéey bi gën a bëri yàlla la ko yàlla yombalal xam naa ne dina la ko yombalal ndax am nga xolam am nga nga xolu yàlla dina ko yombalal ndax jàppandal na la itam loo ko defee yàlla dina la ko yombalal parce que fi nekk nii yaa ngi ci loxo autorité bi yëpp da bokk kon nag ñetti xew yooyu yëpp yàlla wàcc na ko ci yow. alhamdulilah ñu ngi ñaan yàlla yal na yàlla teg la ci yoon bi gën a gën a dëgër. nga taxawal taxawal sa mandat taxawaay boo xam ne waa Kaolack bu gis ne. am na lu bees Kaolack. loolu rek laa bëgg gis lu bees Kaolack rek. te yàlla ko defal. ndax koy maye yëpp yàlla xéewal na la ko. bu baax loxo bu tàlli. ak euh, waxuma loxo loxo bu gudd. loxo bu gudd bu mën mm-hmm. yàlla may na la ko. Mm-hmm.